ay ayca la sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi safoo Dental TV comme niñ koy defee saa su nekk rek nee naa Dental TV du jug li nga xamante ne moom moo neex ko def koy defee saa su nekk rek ñi nga fi nga ne ñi ngi ne fii nga xamante ne moom mooy dëkk bu sell bi di Touba euh, ki wootee Touba nag di 18 18 safar ki ko wootee di Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg ngeen ciy ànd ak kan Sista Eva maa ngi fii nga xamante ne moom mooy Baxdaat dëkku Serigne Djili Abdou Khadir Ilimaanu Ilimaan yi kooku nag nee naa la moom mooy bàyyu Serigne Mouride kii ma taxawal nag jëwrin la ci euh, Serigne Béthio Thioune euh, taalibe sëriñ Saliou Mbacké boobu ñu di ko wax euh, Serigne Modou Diop Malaayka sëñ bi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay soxna si. Mm-hmm. kon xam naa day mel ne kon xanaa kon damay def ab rek bu gàtt. Mm-hmm. ci di sant bu baax xam li may li may joyantiit mooy mm-hmm. dangay wax jëwrin universel Modou Diop Malaayka rek ndax mën naa am doonagum ab Serigne. waaw kon loolu moom mën naa koo tàmbalee di sant bu baax ci fekk si ngeen ñu fekk si fii. gannaaw ba it nuyoo bi di bég lool nag ci seen teewaay waaw mhm, mhm. ah, ak kàddu yi nga xam jot nañ ko fekk mu bàyyi ko ci Serigne Saliou Xasida mhm. eh, bég nañ ci lool di ñaanal nag sëriñ mun taxa Mbacké moom Serigne Mouhamadul Bassir mu yàgg fi loolu te wér ko ñaanal Serigne seex Jëmb Fall moom maam Cheikh Ibra Fall it mu yàgg fi te wér ndax olof day faral di wax ne kuy bëre boot la waroo ñaan mu daanu kon ñoom dañoo gàddul lu ñu waroon a gàddul suñu bopp te mënuñu ko ñoom ñu gàddul ko. bëre boobu may wax nag mooy saasu ne ñoom ñu ngi bëre seytaane mhm. ngir seytaane moom yitteem mooy gàllankoor jaami yàlla ba ñu dellu seen borom mhm. seen yitte nag ñoom mooy saasu na xeex ci mhm. luy tax ñu ñu dellu suñu borom kon ñaanal leen ñu yàgg fi te wér wareef la waaye nag mënuma daaneel nuyoo bi te ñaana lu ñaanaluma sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou ci di mu ko bëggee ñu ko koy waxee euh, ndax euh, ki tax nga jot ci ni ko jaajëf wareef la la sëriñ Tuubaa waxoon ñenn ca mag ñi rek mënu a fay naar bi xorom si waaye dara doy sëkk naar bi ngeen xam ne moo fi indi xorom si kon nag ñun bu ñu jotee ci Serigne Saliou ba jariñoo ko ndimbalu Serigne Béthio la ci la ko jaarale kon mooy ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér ci kàddu yu jëkk yi ndem nuyoo la. Euh, Serigne Mbodj Diop Malaika lan moo indi toro yu bi. waaw loolu de xanaa dama ciy cof rek waaye lépp ni mu demee wax di ko wax ci ci ab rajo ba tele xam naa du ko jar waaye nag ndeem ak cant la te judduwaale wuñ ko du tur wuñ judduwaale. naa maanaam sunu waajuru góor ak sunu waajuru jigéen ba ñuy nas di ñu wutal aw tur Mouhamadou lañ ñu tuddee Mouhamadou nag bu ñu ko waxee jàpp naa ne képp kuy di nga xam ne Mouhamadou yonent yàlla Muhammad lañ ci jublu tur woowu nag dàkkental la bu bàyyikoo ci liggéeyal Serigne Touba. ma di joxe nag ñaari mbir ngir yow mi ma koy laaj nga am cib xam-xam ñi ko fekkee am cib xam-xam mën naa amit boo lëggee képp ku jot waxukaay bi moo xam ci foo ko mën a gisee mu mën laa indil tuuti gindiku mooy tur woo xam ne des koy judduwaale lislaam muy fiq jàngal ñu nit bu juddoo ba bés bañ ko war a wutal aw tur jot dañuy nodd li xam jibal aw turam leewatal ab gàtt ak ay caaju tur woowu mooy tur yi ko bàyyam tudde ak i bokkam waaye moom tur woo xam ne dañ koy jëlee nag ci boo toppee sunu borom di ko liggéeyal ma des na see joxe misaal mu fës di nga dégg ñu naan soxna jaara buso mel na soxna jaara buso moom picc yi naaw sax boo ko tuddee xam nañu ko waaye moom tuddul soxna jaara buso mu ngi tuddu soxna Mariama sante buso. waye cërub yalla bima am ci yalla ci liggéeyal yalla muy darajaam moo mujj suul aw turam kon cieur dina toppe ci yalla ba muju tur wala ñu gëna xam sax turu cosaanu wajuram loolu moo ma dab ci binu amé ndimbalu yalla binu def nu nit Serigne Touba bolé ñu ci alalam def ñu talibé Serigne saliw ñu diko ko mom Serigne saliw ci lamiñam ak lol Cheikh Béthio ci le tour wo ci man limako mayit nak liggéeyal sëriñ Tuubaa la mu ngi juddoo ci xel kom bu jëkk gi ñuy jëkk a wax muy gor bu jëkk ba su ma ko doon wax ci atum miladiya muy atum tubaab arminaatu tubaab muy calendrier bu tubaab dama daan la kon 1991 lay doon ndax hijiriya moo am ak miladiya kon ma waxee la ko noonu 1991 lay tombeel Serigne Saliou tudd loolu ci aw làmmiñam Cheikh Béthio fekk ko ca ñooñu nag lu ñu tudd jëm ci nit day barkeel ba àddina sëpp dañ ko ciy xam liggéeyal sëñ Tuubaa daal ci la nu nekk ba tur woowu dab nag fi ne boo ñu mënul soppil jëmm mënatuloo soppi tur wi ci gàttal waaw. Euh, jëwrin euh, moo di Diop malayka dama dégg ñu naan la universel euh, te tey universel dafa ëmb lépp pourquoi universel moom mu choisir ñëw fii nga xamante ne moom mooy Baxdaad te gis nañ ne daara yi bari na macha allah wax ne com moo ne la nga ñew accompagner ki nga xamantene mom moy sa mak nek sa xarit nga xamne ne doon jangano fele nga xamantene mom moy mooy daaray Serigne salew waaw loolu it ak tiant lañ ci jidal ci baat bi nga jëk wax ci universel moo sank bi nga ne Serigne sax man la man xamane naa ne ma Serigne ndax Serigne dama xamul lu mu doon waye liñ ma tapal dal muy universel sa su ne day bok ci limay gëna yittel ndax li la sëñ Tuubaa tuddal ak yow li nga tuddal sa bop dañu tollo daraja li serigne bi tudd day gën li nga tuddal sa bop universel nak cër la buñ ma tapal te xaw ma lu mu doon waaye li ma ci jot a xam ak néew ñu xamal ma ko ci mooy fu ma ne ci àddina rek fekk fa ay murit rawat nañu aju ci Serigne Béthio jëm ci Serigne Saliou maay seen njiit. kon kon jàppee naa ci ne am na luñ ma xamal ci sëriñ bi am na luñ ma xamal ci nu ñu àndeek mbooloo jëm ci sëriñ bi te universel jàng ay tubaab baatu nasaraan la universalité day mel ne boo ko bëggee xam dëgg-dëgg da ngay jéem a am xam-xam ci yonent Yàlla mu met ndax moom rek mooy universel kon ñu def ma jëw universel fu ma dem fekk fa mbolo murit rawat na ño xamni señ sëñ Béthio seen bunt maay seen njiit tur woowu daf may dàqal boo ma deex Modou Diop ak señ Modou Diop ak daf neex na ma way way bo daf may gëna neex ndax wax ma luma xam daf may dàqal wax ma luma xamul la ca desit baghdad baxdaat gi tànnuñu ko day dellu soati li ma ñëk wax tanal sa ak señ tuwa tanal la dafa am lu ca nekk lu bokul bo tanale sa bop baxna ndax nit nga way yow mën nga nit dina tan ba yi lu ko lor sëriñ Tuubaa nak bo tané tek sab loxo loraa ngi dootu ca nekk baghdad gi tànnuñu ko ndax mën naam xamuñu ko woon mën naam mosuñu fi ñëw waaye sëriñ Touba mi bëgg ñu jariñoo ko ci jariñu ci liggéeyal ko moom Serigne Saliou te mooy sëñ Béthio ndax moo ko ne yaay man maay yow dëgg dëgg jàpp ci yow mooy jàpp ci man te ku la topp noppal ma fii ak ëllëgalu jëm teg ci def lu ma neex Serigne Saliou moom di sëñ Béthio nag kon warees naa xam ne kon sëñ Béthio mën naam du tànn loo xam ne dañ sa gis ngunte moom nag moo ma tànnal Baxdaat ba ko tànnee ba noppi nag tawféex ga mooy maag Serigne Saliou mii wax na la ko léegi ci ay kàddoom démb la woon ak bërkaat démb loolu it ba tey du man du moom Serigne Saliou la ànd boobu Serigne Saliou sumb suñu diggante moom la Serigne Saliou ci li ma jàpp man naa ëpp loolu ndax am lu ma xamul li ma xam laay wax man naa am diggante boobu rafet te la ca bale di njariñ la Serigne Saliou bëggul mu dox moo tax sëñ Béthio taal bu Serigne Saliou mës a taal bu mel dem na ba aajowaat mat dana ko fa yebal mu taal mu dala fa mat moo fi Serigne Saliou fi taal sëñ Béthio defaat ay mat ba muy jufu fi ma ñëw ànd koog sëriñ Saliou keroog bi nu jàkkaarloowaatee am naa bànneex xol te wóor na bu mu amee benn bànneex xol moom am na ci téeméer sunu ànd bi it tawfeex rek la li waral it nag mu dàqal ma mooy da ngaa wax ne dëkk bi mooy Baxdaat Touba Baxdaat mu wax léegi ne magam ju ñu tudde Serigne Touba ñu koy wax Baye Touba mooy njiitu dëkk bi muy chef de village ni ñu koy waxee waaye dëkk bi Serigne Abdoul Khadr Mbacké mi nga xam ne moom la mii miine ci imaamu imaam yi moo ko sosal boppam doomi Serigne Touba nag. loo ñàkk-ñàkk xam-xam xam ne bu dee nit it la ne ca moom du nit moo sosal boppam dëkk bi la ca des it wax nañ ma ci siira ne nekk na fi nekk ci barab boo xam ne ci biir kër yi ñu ko tuddee xayma bi ba yont yàlla mu fekk ko fi ak ñam daan àndal kon dëkk bi tànneef la ci biir tànneef Touba rek tànneef la kon su amaatee ci biir Touba ab quartier mbaa dëkk bu ñu sos ci biir Touba yont bi feeñ sax ñam àndaloon kon war na war na war na laa woon ne dëkk boobee am na daraja sëriñ Abdou Khadra ko sos daa fi dudd ba tey it jàpp na ne mu ngi fi dund ndax doomi Serigne Touba la kon ñu am ci ñaari taw fexe fekk fi sëñ Sall ba ca jiitu mooy di fi liggéeyal Serigne Touba ci aw ñam di togg jox murit yi ak mbindeef yàlla yi ndax sëriñ tubaa wàccu fi rek ngir murit yi sëñ Touba taw feexu mbindeef yi la taw feexu murit yi rek déedéet lu gën a jege rek day gën a yey moo indi taw feexu murit yi waaye sëñ taw feexu mbindeef yi la la koy dëggal mooy moom rek nga dégg mun ne yaa maalikal mulki yaa man jalla an hawadin irham jami awra yaa handira mbindeef yi la wax kon sëñ Touba taw feexu mbindeef yi la loolu ma bokk sëñ Saal ak liggéeyam bi ni ko fi liggéeyal la ca des it mooy sëriñ Abdou xa sëriñ Abdou Khadre sos dëkk bi di waajur sëriñ Bassirou Mbacké mi nuy dàkkee sëñ Bass Abdou Khadre waaye sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdou Khadre moo gën a jub kon du maa tànn sëñ bee ma tànn sëñ bi nag lu mu la tànn rek sa njariñ la moo tax jàpp nañu ne sunu màggal moom ba keroog ñuy jotaat ndigal fii lañu sax di fi màggal seen at mu jot ci gàttal waaw. waa jëwriñ la lan ngay wax ci daara yi nga xam ne moom la cheikh bi sant décentraliser ko ci biir dëkk wa wañ yoyu lima ci wax kat moy batay ki xamul day japp ne seigne Béthio mo tok bam yagare rek mu bëgg ay wañ rek di sédel ay wañ dedet bëgg-bëggub seigne saliw la mu liar koko ci lu bare bari lu mu waxe ak mom ndax dëkk bi seigne Touba ko sos lolu mom limu limu mag mag ci at mag yow ak ñi may déglu wéer nañu ne Touba mo sos dëkkam bi dëkkam bi bokkon na ci liko ko ba tax ba tukki bi bokkon na ca ak lam ko jëndee ba mom Touba Touba di bërëb bu Yalla ñongal aral ko bopam bu ko fi nek yok kon senjiao, Béthio Serigne Saliou leer la ko Touba ñi fi dëkkee amna ño xamné bëgg Serigne Touba rek la fi ba. waye man naam jekkuñ ci seen poste am ño xamné ne bi nu bëggee Touba bopam am na lu jot am waye da matut da jotut ñu ko am ño xamné man naam sax ñom amuñu kon dal li gëna ëpp solo ci ñi fi dëkk si ñëpp bëgg Serigne Touba la fi indi wax nga ko leg say cadeau magal daana jóg gis ku génn quartier mel day gëna a bopam dëkk bi di wax damay magali tane ne ci biir dëkk bi ñuy magalé lool nak la ko daal indi rek moy xat-xatu jamono nga xamné yalla yàllaa day jox ki ñaar jox kee fukk ka ci dess mu ne ko toppal ci borom ñaar yi borom ñaar mu ko borom fukk yi mo am non la te lool nak indi sëñ bëccu bi ko sëriñ Saliou liyaare jaaré ko ci sayr ak ci batine mu xamné kon xéewal yi ko jok jox ba na sëpp di ko waxtaane war ko mu war ko wesaare ci biir Touba tàmbalee ko ndax waa ñi yamul Touba dem na ba Njaarim te nee na yéene mooy muy dem ba Dakaaru ndax Sëriñ Touba dana màggal gi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la koo xam ne sama mbégay sama ginaar ba ci gileem loo ci am fu mu la fa mënti fekk kon Touba rek tëgg ko Sëriñ Fallu nag moo nu ko jegal ci Touba sëñ bi ne fas naa yéene fu fu nit ne rek ma di fa taal waañ mooy sabab bi ci ndigalu Sëriñ Saali mu ay waañ waañ wu nekk mu di fa yónnee nag yoo xam ne waa quartier ba ak ña fa dëkk xam ne du du ay nag yu tudd nag rek nag lañ ci biir nag yi ba noppi yebal fa mbooloo moo xam dañuy àndandoo ak waa quartier bi ñu xam ne ñoo ci bokk yam képp ñoo ko bokk kenn ko moom bàyyi morom jàmbul ñooñu nag xëy na mën naam seenu gën a oyof seen mbag gën a tax ñu yebal leen fa ngir ñu àndee ko ak ñoom di ko togg ba mu sont di ko séddale te jublu ci sant Serigne Saliou ndax bëgg-bëgg Serigne Saliou la kon ñu ciy gaawtuwaat sax di ñaanal sëñ Bethio mu yàgg fi di wér ndax yéene mooy wàññi tàmbalee Touba ba Ndakaaru ci gàttal. ok dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw tàggatoo bi de moom mooy santaat Serigne Saliou rek ndax lépp moma lu yëngu lu ñuy wax ak lu ñuy laaj ba nit di ta wax lu àddina mën a jariñoo lépp sëriñ Saliou la moo sos lépp te moom moo def lépp lépp yëngu ba noppi mu ne tekk kooku nag dañuy ñaan bëgg gi ñu am ci moom yéene ji ñu am ci moom cofeel gi ñu am ci moom yaakaar gi ñu ko yaakaar ak wóolu gi ak doylu gi ci kattanu sëñ Béthio mi nga ne la ko jaarle ba nu jot ci ñu ñaan mu yàggal ko fi waaye moom day du denc di ko sant mom sëriñ Saliou ndax imma sakuran aw imma kafur ku santul weddi ñun nak sori nañu weddi weddi mom bu jëmee sow ñun penku luñu jëm and ak cant ci lañuy sax faw kenn lañu sant nak moy serigne saliw ndax hadith ba da xone abbi lam yaskuruni iza lam yaskur man hadini ma ben yadde ku santul fa yalla jaar la sey mbir boko fa jégué di sant bo noppé yalla delo wat la ko ndax yalla da bëgg boy sant nga gore ba famu jaar la sey mbir nga sant ko fa ñun nak buñ jotté ci yalla ba xamné ne nu amal ba adni sub seer na am yalla serigne sëriñ kon li nu am ci yàlla weesuwul Serigne Saliou maa ngi tuub weesuwul ndax lu gën Serigne Saliou ci yàlla abul kon nag santaat nañu Serigne Saliou ci boole gi mu nu booleeg sëñ Béthio moo nu booleeg moom njort nañu it mbaa xalaat mbaa aadam moo nu booleeg sëñ Béthio digal naa leen ngeen jébbalu ci moom di ko tuddee doom def leen ko yitte ndax moom ko topp noppal ma fii ak fa nu jëm teg ci def lu ma neex ku ànd ak moom it liggéeyal Serigne Touba ku ànd ak moom am sama ngërëm la ñu sàkku moo nu boole sëñ Béthio ñu ànd ak moom boobu léegi sëñ Sall mi nag ñuy ñaan mu yàgg fi te wér moo ko njabootam suma ma ne njabootam nag damay bañ lim waye mën na ma lim waye damay bañ lim ndax bo limé da nga dul matal ñu ñaan mu yag fi di wër ñu yag ñew fi andando ak mom bésub Sëriñ bi te Sëriñ Tuubaa nangul ñu ci lu mu neew neew ak lu mu bari bari man na ba ji do sunit nañ ñu ko nangul rek loolu lañu sakku di leen ñaan sen sen sen kër gi di tel TV adina sepp mu wessaro fi te lepp lu ci ay xéewal ngeen jariñoo ko te ak barke ci barkeb Sëriñ ñu bokk ko